kenn ku nekk bàyyi xel li nga xamante ne mooy ëllëgam Naby Vision wabtaxi fii ma aataaka allaha daaral axira waaye wala tansa nasibaka min ad dunia waajalal sa allaaxira ëllëg bu ko fàtte sama mbokk jullit jëlal sa njaboot jàpp ci seen loxo yóbbu leen ñu dem jàngi seen diine te xam ko jàng sa diine xam ko teewul nga jàng sa àdduna ak sa allaaxira jàng sa diine teewul nga xam sa àdduna ak ni nga koy doxalee jàng sa diine teewul nga nekk ci administration jàng sa diine teewul nga bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di nommer ci lépp loo xam ne luy doxal réew mi la ak li koy soppi bu ko defee nañu amuk taxawaay bu baax a baax a baax a baax amuk góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax loolu dina tax fi ñu bëgg a jëme réew mi ñu mën faa yegg Naby Vision. cinq ans yooyu bu ñu joxee majorité à l'Assemblée nationale ki nga xamante ne mooy président de la République loolu dinañu permettre vision yi nga xamante projet bi nga xamante ne nii dañ ko yamale woon ci ay kaddu projet bi nga xamante ne nii dañ ko yamale woon ci li nga xamante ne nii mooy écrit waaye projet bi dina weesu ci ay bind projet bi dafa war a weesu li nga xamante ne mooy ay téere waaye yegg ci jëmm ju taxaw joo xam ne dañ koy séen di ko gis muy dem te nun patriotes yi mën nañ loolu nañu fàtte suñu bopp tuuti te xam ne lii ñu yàlla jox daf ñu ciy nattu di ñu xool mooy nguur ji mu jël teg ko ci suñu loxo nga xam ne ndénkaane la dinañ ko mën a mën sa joxe ji axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا أن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين بريزيدان عثمان سونكو بي موي واخ ايه بي نيك زيغين شور والفجر ديمون دافال كو انترفيو داف تي واخون لو ام سولو كو بايلو موي داخ دا نين فوك نان گم گين ريك ما بايلين نون گم گين دي تي دينه گي ريك مي ليغا جايانتك سا بوروم ني دا نين كو گم بور ريو مي سانجي loolu sunu borom dinañu ci natt xool ba xam gëm nañu. Naby Vision. léeg-léeg nga mérité woo sax ñu fal la dara ñu bàyyi la fa jox ko keneen nga amuk taxawaay am engagement ba réew mi nga bokk ci ñi koy changé nañu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy dugg ci taarixu Sénégal définitivement pour une bonne fois dans l'histoire ñi nga xamante ne nii ay bandi lañ ay sàcc lañu kii saay-saay. ñu fexe ba wan leen ni histoire fàtte na leen histoire dootul ànd ak ñoom ci taxawaay wu ñaaw wi ñu am ndax képp ku àndul ci ñi nga xamante ne nii seenu njub seen intégrité ak taxawaay bii ñu am pour Sénégal baax nga na bañ a ànd ak ñoom ngir yow say intérêt personnel kooku xam nañ ni yow réew mi ñoru la foofu maa ngi fay bàyyee di fa wàccee foofu sama kàddu mooy ci point boobu nga xam ne message bi maa ngi koy lancé képp kuy patriote na nga fàtte sa jëmm te jiital Sénégal fàtteel sa jëmm nga jiital réew mi fàtteel sa jëmm nga jiital intérêt général fàtteel sa jëmm nga jiital li nga xamante ne nii moom mooy le don de soi pour la patrie fàtteel sa jëmm nga jiital li nga xamante ne nii mooy parti Pastef fàtteel sa jëmm nga déglu président Ousmane Sonko ngeen xam ni moom ba mu laaj jotee fàtte na boppam jox Bassirou Diomaye Diakhar fay ba ñu yegg à la magistrature suprême président Sonko wan na ñu moom tuunewul wan nañu ne moom fàttewul boppam wan nañu waaye ne intérêt général moom moo ko ñor. Naby Vision. may wax ci nag ñi nga xamante ne ni dañoo jël alalu réew mi commencé génn réew mi di daw ku ci mel ni Doudou Ka Doudou yow war ngaa am kersay daw génn réew mi ndax ba mbel-mbel jotee da nga fee nekkoon di pat-pati di wax bi xeex jotee da nga fee nekkoon rëy làmmiñ Doudou Ka bul fàtte ni am na amal nañ la ay dossier xam nañ li nga def am na ay boy yoo xamante ne yéen da ngeen leen a jàppoon jàpp leen ci saaku tëj naroon leen a sànni géej booy yooyu mu am ci ñoo xamante ne mandat dépôt nañ ñu ñëw kaso te ñun ñu xam leen ñu ngi def suñuy investigation ci suuf te lépp bu leeree dinañ ko teg ci taabul bi dinañ ko yóbbul yoon mu topp la ba mu jeex tàkk yow Doudou Ka moom góor warul daw dundu ak dee rek mo fi ne li ngeen def da ngeen koy assumer ñeme ko ba taxaw jotee pour défendre Macky Sall da ngeen ko doon ñeme Macky Sall bi mu xamé ni buntu amatul daf leena bayyi dem yoonam yag nañ leena wax maytu leen ki ngeen di top jaru ko te dégguwul leen dudu ko war nga jombale sa bop di daw di génn réew mi yoon bu la soxla da ngeen wara tok ma mbay ñaar yow ak liñ fi wax yépp Naby Vision. du honneur ci yow nga dem toogi Canada wala nga dem toogi Maroc da nga war a toog ci réew mi wane ni sénégalais nga bu fekkee defoo dara nga wane ni sénégalais nga bu la yoon woowee nga wuyu ji te dem défendre te am ay argument ku fi jël alalu réew mi dinañ la topp ba dernière centime di nga ko fay. may lancé benn appel nag ci régime bi fi nekk muy président Sonko solennellement nag moom laa koy wax. Bougane Gueye Dany Youssou Ndour ki jiite 7TV Maymouna Ndour Faye fàttewuñu li ñu yoreel peuple sénégalais bi may wax président ko ne leen bu fekkente ne Bougane li mu yoreel état bu Sénégal ci fisc fayu ko Youssou Ndour bu fekkee li mu yoreel peuple askanu Sénégal ci état bu Sénégal fayu ko Maymouna Ndour fay li mu leen yoreel bu dee fayu ko na ngeen ubbi kaso yi te bàyyi booy yi ñu dem seen yoon parce que boobaa loolu injustice lay doon. Naby Vision. Aboubacar Sadikh nee na ki gën a néew doole ci yéen ku am doole la ci man bu dee dañoo jël àqam ki ëpp doole ci yéen ku néew doole la ci man bu fekkente ne moo tooñ ñii nga xam ne ñoo yor média yi nekk fi di fen ak mbël-mbëli dama ne na ngeen leen jaarale ci yoon ci peuple sénégalais bi li nga xamante ni dañ ko yoreel askan wi nañu fay wala ñu tëj seeni télé bu ko jaree ñu jaay ko ñu commencé wat ñom à zéro parce que ñoo doon lek xaalisu askan yu muy neex ñoo doon lek xaalisu askan bi ba man sama dom mënul gis sama bop ci réew mi ba man suma ma am problème dépense 3.000 francs dañoo wara fay parce que man suma ma les contribuables état damay fay suma ubbé sama place def office publicité damay fay suma ma éclairage damay fay suma ma mètre carré loué ko ci mairie damay fay kon ñooñu mënuñoo yor li nga xamante ne nii mooy ñuy employé ay nit war ko delloo ci trésor public jël ko tëdd ci ba noppi boobu ba léegi ngeen leen di seetaan jaarale leen leen fi ngeen leen war a jaarale pour ñu xam ni justice am na ci réew mi yooyu duñ ko foowee duñ ko laam-laame bugaan sàcc nga te di nga delloo alalu réew mi Naby Vision fi ñu jëm nag man ñi ma yërëm mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yéen ci seen coalition boobu te bala ma xam seenu ngóor yeen ñi nga xam ne taxawal coalition bobu da ngeen di dem ci seen base dugg ci biir liste yi pour mën gagner bu Bougane da nga wara delu Saint-Louis bi nga dëkk nga dugg ci liste yi wane ni am nga doole comme ni koy Ousmane Sonko won Sor jël risque Abdou Mbaw nga delu Thiès dugg ci liste yi bu len dugg ci liste nationale ya loolu bu ngeen ko defee rek gëmu len seen bop xamu nangulena seen poids ab leader day natt poids leadership day wane ni man am naa kàttante mën naa ko wane mën naa ko engagé